jambi bi ak xamul luy yàlla rek munul muraqaba fii ak xamul luy yàlla munul tewlu yàlla ndax day fokk yàlla leneen wala mu fokk yàlla fu sori wala mu fokk ne sax yàlla xam-xamam rek la nekké mom waye bu xamé lan moy yàlla ba xamné yàlla haybatan wa jalalan wa kamalan lépp mu ngek mom fofu lay amé dawa muraqaba ñu baña ut ma'rifa pour comme arme diko dorante mala gëna la gën a dégg lii la li lee waye waaye du objectif bi objectif tasawuf objectif ma'rifatu billah mooy gën a am jege yàlla gën a am muraqaba gën a am taqwallah gën a am mahabbatullahi tabaraka wa taala loolu moom la bàyyi na radiyallahu anhu bëgg ci taalibe mi naka noonu tamit tasawuf ci boppam loolu moom moo doon objectif am wax leen yéen ñëpp alhamdulillah yéen ñëpp bàyyi nee nañ wax alhamdulillahi rabbil alamin ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp nañu alhamdulillahi wal abdulillah wa salaatu wa salaamu ala mawlana rasulillah وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكو جلسني موكو تالبي نيومي لين دنيو يعني نيسي في شان دانا الفيضو لنيو واتا جين تي بان بوين وخمي وخو مولاي شيخ إبراهيم نسل رضي الله عنه muy wax boo xamante ne law na lool ci boroom xam-xam yeeg muqaddam yeeg taalibe yi ñu ngi koy paasante ñu am ci ay déggin yu wute ci nit ñi waaye ñu bëggoon cee ind benn déggin boo xamante ni dina yembe ni ñépp mën cee jëriñu te su suñuy njort yu gàtt déggee nañ ci ne bàyyi loolu la bëgg a wax ànd ak ne dégg yi mën nañ yaatu waaye déggin bii ni moo gën a jege boo xamante ni muy عامة العارفين وخاصتهم يقمن نجي جرينيو مجرينيو أولا خمنا نجي ميسيون تصوف دونك ميسيون مولاي شيخ راحيم موي ومت جامي يبولين تسين برو أمول لنين موي بند يمي دف جانغالي تربيو بي لب أمو تي بن تيرو بكن موم تي بكم وحنا نعلم خالقي بأن سفري ما فيه حظ من حدوث البشري mune sama sama borom bima sak xamna ne tukki yi may tukki yeb amu ci cëru bakkan limay def yeb pour yaatal islam la waxna ne alawtu al zakhirat wa innani alawtu lqura walmudna balha ljibala aruumu rida bari li nusrati dinihi wa ubrizu liljiil ljadidi mithaala radiallahu anhu bàyyi ne maa ngi kawe ci kaw montagne di xoti géej di xoti alli di dem fu sori ci kaw aduna bi ñu ne ko lutax mu wallahi arum al-bari li nusrati dinihi lima ci bëgg rek moy am ngërmaande yàlla ci ne maa ngi dimbali dinem bi waye wa ubrizu lil jiilil jadid mithala ma won nouvelle génération bi exemple bo xamne ne suba mën nañ ci jaar Baye ñess mission mooy wommat jaami yóbbu leen ci sen borom moy limu wax ne wal ummatu qasdi fihi mu an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina mune xet bi di xet yenenbi sallallahu alayhi wasallam sama càkkuteef ci ñoom mooy ma wommat leen yóbbu leen ci peyu yàlla bi léegi baat bi ñuy utiliser mooy xa anta sa borooma ngoog li gën a bëri ci nit ñi ci aarif billahi ci taalib ci firee mooy bàyyi day yóbbu jaam bi ba ne ko yaa ngoog sa borooma ngoog kon Baye day eggal jaam bi ci yàlla Baye Niass mooy kiy eggal yàlla Baye Niass digganteem ak jaam bi wax ji bëri na ci lool waaye pour tënk rek Baye Niass mës na toog bés mu ne wallaahi xaaruma ci yéen ngeen liggéeyal ma xaaruma ci yéen ngeen ne ma jërëjëfee bàyyi xaaruma ci yéen dara mu ne bu ngeen fexee ba seen digganteek yàlla yéwén ñëw ngeen ci dayoo gërëm ma ndax yàlla moom li mu diggal jaam bi mooy an yuxlisal amala lahu maanaam jaam bi sellal jëf bi ñeel yàlla sellal bi mooy lan mooy nga génne ci keneen ku yàlla te yow leneen nga keneen nga maanaam yow ci sa bopp nga fexe ba deñ ci gis sa jëf waaye nga am ixlaas taam jëm ci yàlla te yàlla tamit loolu la bëgg ci jaam moo tax mu ne wa maa umiru illa li yacbudu llaha muxlisina lahu ddin mu yàlla ne man digale digaluma wala digaluñ leen lu dut nañu jaamu yàlla te ñu sellalal yàlla jaamam gi Cheikhu Tijaani Sharif radiyallahu anhu day wax mu ne boo duggee ci néeg wala ci jàkka naan da ngay wéetal yàlla mu ne boo seetloo di nga gis ne da ngay wéetali yàlla ndax yaa nga fa yàllaa nga fa bërëb baa nga fa jaamu gaa nga fa ak yeneen lu dul loolu kon bëri mu ngi foofu te loolu du maqaama tawxid yàlla wax ci alquran mu ne يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم لن يصح لك آية وإن الله كان عليكم رقيبا yàlla ne yéen doomu aadama yi xam leen ne man ku soppandiku naa ci seeni mbir maanaam dara ump ma ci li ngeen di def doomu aadama bi bu demee ba xam ne amul dara lu mu mun a def amul fenn fu mu mun a nekk lu dul ne yàlla moo ngi soppandiku moo ngi tiim ay mbiram bu boobaa am na yenn rëcc-rëcc yoo xam ne bakkan moo la ciy poussé di nga ci bàyyi xel doomu aadama bi du def yenn yi lu dul ne màggaayu yàlla bi dafa nëbbu ci kanamam nëbbu ci xolam wa illa dina am kersa waxuma la sax ragal waye dina am kersa pour def lolu non ci kanamu yàlla yàlla ñu yàlla yóbbu ci lolu loolu moom mooy dawaamal muraqaba motax yàlla waxna na ci alquran ne wa huwa maakum ayna ma kuntum man ma ngi nek ak yéen fu ngeen mën a nekk yëpp loolu am la lolu doomu adamay yi ñëpp ñoo ci yam muy jullit muy yéeféer ñëpp inna allaha maakum yàlla mu ngi yéen maiyatu bi bari na ci ay wax waye ñu top wax ji ba bàyyi muraqaba amul sens muraqaba bi mooy nga fexe ba nga xam ne yàlla ñi nga xam ne xaasal na leen maiyatu bi mooy inna allaha maa alsabirin maa almuttaqin maa almuminin maa alladina taqaw walladina hum muxsinun maiyatu yooyu nga xam ne xaasa la nit ki fexe ba bokk ci yooyu yàlla subhanahu wa taala xamal nañu ci làmminu sang bi di yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suba yowmal qiyaam dina dëj jaam naan ko yow sama jaam yaa ngi fàttaliku bés nangam guddi nangam ba nga tëjee sa néeg weet yow kenn di def lu la neex mu ne lan moo tax nga jël ma man ma doon ki gën a doye di ci ñu la war a gis maanaam yow nëbb nga sama mbindeef bi yépp ba mu des man nga jàkkaarloo man di def ay moy loolu lu lu lu garaaw la yàlla nañ ci yàlla musal kon Baye radiyallahu anhu bu ñu xoolee ci lii yëpp ñu gis ne mission wu tasawuf mooy yóbbu ci jaandi ba mu am ixlaas mooy ba mu mën a sellal carrément dañ ci shirk shirk yépp moo xam shirku euh, shirkul agraadi wala yeneen maanaam nit ki li muy jëf muci ciy jublu aljana wala ragal ci safara wala limi def muci def ngistal yoy yep ay bokalal jambi pour mu deñ fofu non il faut ñu jëlé ko fi jële fi mbindeef bi yàlla kesse dess ci kanamam bu boba ci la jëflante bi di wër motax liñu déggé ci baye wax ne ha anta wa rabbuka moy baye day téye sa loxo mat la ba nga egg ci peuy yàlla bi mu xamal la luy yàlla parce que jambi bi fi ak xamul luy yàlla rek mënul muraqaba fi ak xamul luy yàlla mënul tewlu yàlla ndax day fokk yàlla leneen wala mu foog yàlla fu sori wala mu foog ne sax yàlla xam-xamam rek la nekkee moom waaye bu xamee lan mooy yàlla ba xam ne yàlla haybatan wa jalalan wa kamalan lépp mu ngeeg moom foofu lay amee dawaamu muraqaba bàyyi ñas nag radiyallahu anhu bu teyee ci loxo taalibe bi da koy yóbbu ba mu egg ci maqaama boobu noonu boobaa nag bàyyi ne ko ha anta wa rabbuka yaa ngoog sa borooma ngoog bi maana jëflanteel ak moom léegi bul jëflanteel ak sa bopp bul jëflanteeg jaam yi bul jëflanteeg man mii di bàyyi waaye jëflanteel ak yàlla ndax ba nga demee ba nga xamante ni fii xaqiqatan dara nekk fi lu dut yàlla ngay bàyyi xel ci teewlu yàlla bi ak nekk gi mu nekk ak yow bu boobaa nit ki lépp lu muy jëf yëpp day ngir yàlla dootu ci xool mbindeef yi waaye nag ki nga xamante ne xam na yàlla bu nee dootu ci xool mbindeef yi ba day def luy lor mbindeef yi wala danaan man sama yoon nekk si gërëm maa ngi ñàkk maa gërëm lu yàlla bëgg rek laay def déedéet yàlla boobu noonu moom moo la xamal xàmmeel boppam ba bu boobaa fépp feeñuwaay bu mu feeñoo yëpp da nga ko faa war a xormaal feeñuwaay bu mu feeñoo yëpp da ko fa war a jox cër kon haa anta wa rabbuka moo ngi noonu ci suñuy dégg yu gàtt mooy kane jaam bi war na fexe ba ginnaaw ba mu amee fatxu am maarifa xam-xàmmee boobaa mu jëflanteeg boroomam bañ a jëflanteeg nafsoom bañ a jëflanteeg doomu aadama yi bañ a jëflante pour ñu ne borom xam-xam la wala borom dégg la wala yu mel noonu ñu bañ a ut maarifa pour comme arme diko doranté mala gëna la gën a dégg li ni la li lee waye lolu du objectif bi objectifu tasawuf objectif ma'rifatu billah moy gëna am djégé yàlla gëna am muraqaba gëna am taqwa allah gëna am mahabbatu allah tabaraka wa taala lolu mom la bàyyi na radiyallahu anhu bëgg ci taalibe mi naka noonu tamit tasawuf ci bopam lolu mom mo doon objectif yàlla ñu ko yàlla xam loo tamay ñu ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته